pour disperser les voix parce que opposition il faut encore l'électorat capter l'électorat bul fàtte le pastif, dissoudre nañ parti Euh, Ousmane Sonko génne nañ ko ci li nga liste électorale mm-hmm. il ne va pas se présenter quoi qu'on puisse dire Ousmane Sonko dans l'élection élection maintenant électorat boobu il faut mu am non xamante ni moo koy capter non Pastef nous votel taxaw Sénégal c'est na problème de am seen diggante Pastef du à Abdoulaye Wade Karim Wade gis nga problème bi am seen diggante donc Pastef kan la mën a jox li nga xamante ni moom mooy sa voix Ousmane Sonko ne va pas dire ne va pas donner de consigne de vote tel que je connais Ousmane Sonko maintenant les votes les voix seront dispersées ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy les candidats yi dañu yooyu Déthié Fall bu dee dem na wala wala wala wala wala Malick Gakou bu dee dem na ñoom am na lu ñuy tibb ci électorat Ousmane Sonko maintenant ki nga xamante ni moom moo nekk ci pouvoir génne ci pouvoir il faut mu nekk ku nga xamante ni ku capter électorat wu li nga xamante ni moom mooy Pastef la donc ce sont des calculs politiques mooy li ma waxoon ni politique ñetti temps la temps de la guérilla temps du dialogue ak temps de la stratégie instant bi ci une stratégie gañu élection yi ci la ñu nekk est-ce que nekkul tamit le président Macky Sall l'oeil lay euh, calculer en ce moment mais euh, ban posture le président war a euh, face à cette situation. Euh, bon d'abord may nuyu Momo Cissé sama natango bi rejoindre une plateau tout à l'heure mhm. euh, bon la posture que doit adopter le président Macky Sall euh, en, cette situation mhm. je vois que ni que euh, un peu mon confrère bi déjà que Macky Sall a déjà fait son choix mhm. maintenant attendons de voir joie à la def il y a Amdouba, il y a Diallo et les autres. Mhm. Mais il faut se dire aussi que le choix que déjà, ça lui met mal à l'aise que moi de choisir. Quand moi, quand moi, je au sein de la coalition Benobok Yakar. L'autre, déjà, c'est un problème. Donc, euh, du coup, la posture, je pense que euh, mom la wara adopté actuellement je vois pas que ni que mom il est un choix amna choix quoi. il doit choisir mais il n'a pas le choix. mais il doit choisir mais il, il n'a pas le choix déjà donc loolu ça pose problème euh, donc man jappna ni Macky actuellement lenn rek la gis ni que peut-être su peut-être apaiser un peu. Euh, les tensions, vu que nous sommes à 6 mois, 6 mois, 5 mois des élections, mhm. euh, me révéler une bonne fois qui doit être euh, le leader voilà, qui, doit, qui est l'élu. Mm -hmm. voilà, au sein, euh, à la tête du moins de la coalition Bonabeno Bokyakar, voilà essai candidature à la présidentielle. Mhm. Alors, Momo, oui. bonne posture, le président Aurédiol bon, xam nga posture bi bi président war a jël euh, je pense que président mu ngi ci posture am bi mu jàpp ni moom mooy posture bu baax. Mm-hmm. mooy il a déclaré sa non candidature këram yëngatu na maintenant mu ne tekk di leen déglu tekk boobu mu def déglu la leen kenn ku ci nekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na loo ko wax am na ñu mu entendre ñu mu déglu am na ñu nga xamante ni euh, Moustapha Niass déglu na leen donc du coup. Euh, moom mu ngi mu ay mbiram di xool affaire yi fan lay fan lay mujjee mhm. mais tey li njëkk ci li président di njëkk a def mooy remaniement mini remaniement lay lay def parce que ki nga xamante ne moom le candidat mhm. euh, il faut il faut que d'abord il faut un gouvernement de combat un gouvernement buy dem élection gouvernement buy dem élection mhm. ak ki nga xamante ni moom le candidat si c'est Amadou Ba je ne pense pas qu'il puisse continuer à être le premier ministre il faut qu'il le libère le candidat de Benno Bokoyakar, ou wala alléger un peu ses tâches pour que nous puissions a dem ci élection on parle des parrainages parrainage le 28 lay tàmbali xam nga ñoom yaakamti wuñu donc su fekkente ni un am parrainage citoyen ils auront 13 députés Ils nga xamante ni ñoom ñoo leen di parrainer mais 13 députés yi ba parce dem yëngali base bi parce que parrainage citoyen aussi il faut que nga xamante un am députés. député duñ bàyyi base muy il faut ñu dem wuti parrainage citoyen leur aussi animation politique leur dafay yëngal dafay yëngal base bi maintenant sous ma président Macky Sall avant ñu yegg si fii ba ma déclarer sama non candidature. Mhm. j'allais appeler instance mhm. parce que état boobu daf koo brûler damay woo instance yëpp damay woo sage yi. damay d'abord ko euh, secrétariat exécutif national. Mhm. ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba pare.

Euh, euh, ay yu bari yu dajee ci donc du coup mbëkkante bi daf fay bari maintenant nag posture bi nga ni le président di def instant bi loolu jàll nañ ko li ma mu woote waxtaan ak ni bi prenne ses responsabilités et dire au Sénégalais que diw choisir maintenant ñeneen ñi ils vont sortir du gouvernement, c'est sûr, parce que quelqu'un comme Ali Ndiaye, non, non, non, je ne suis pas prêt à désister, cela veut dire que Watan Bini Watan aboutit Mais il a défié euh, ouvertement le président de la République. Maintenant, si le président choisit, il n'aura pas autre choix. il n'aura pas autre choix que de sortir de battre campagne. Mm-hmm. Mais si nous,

Euh, génie politique attitude merci beaucoup Macky non non la non la non la mel da xaar mu dem génn da mm-hmm. bon laissons cette semaine passer et je pense que remaniement mm-hmm. d'après ci ay ci ay mm-hmm. ci fin de semaine dina ma trop le remaniement bu ci fin de semaine bi alors d'après tes euh, président Macky choix wam yow itam moom alors. ça <laughs> laisse-moi Momo euh, mani je suis en train de faire sa promotion j'allais lui dire de choisir euh, comment il s'appelle encore mhm. alors euh, leader tout sauf Amadou alors est-ce que faut aussi du indi problème bu que ni président Macky Sall choix primaire am non mais Lolo, de pour koy mais la plupart quand même c'est une une buñ sondage. tout sauf Amadou mais la base ne dit pas tout sauf Amadou Ba Amadou Ba am mais ay taxaw ne Amadou Ba le candidat te ñi nga dégg tout sauf Amadou Ba a candidat veulent tout sauf Amadou Ba mhm. euh, mais euh, moi li ma la dafay sende moom APR moom dafay dafay dafay dafay xaaj ñaar. Mhm. mais tey su président Macky Sall bëggoon a gagné élection yi. xam nga kan lay mhm. choisir mooy ki ma wax léegi Mame Boye Diao Mame Boye Diao vous savez wax naa ko fi Mame Boye Diao de Kolda. Mhm. xam nga moo la remarque à Pikine bépp nitu Pastef bu ma waxtaanal. daf naan ma APR ku fa mën a génn doy na sëkk su ma la turu Mame Boye Diao da nga naan ma kooku même bu fekkente ne moom bu fekkonte ne mooy candidat wu Macky Sall j'allais pour pour lui parce que mosuñ koo dégg mu wax lu ñaaw Ousmane Sonko mosu koo xas mosu koo attaqué et loolu sax bokk na ci en général li nga xamante ni moom moo xaw a son ancien son ascension am na ñu may wax ne ku jege Ousmane Sonko la complicité boobu non wala xaritoo boobu mu am am na ñu doon wax naan Amadou Ba dafa dafa xaritu Ousmane Sonko le du ko mais Amadou Ba a Ousmane Sonko une fois Ousmane Sonko a riposté par des arabes mhm. mais Mame Boye Diao mosoo ko dégg. et il a assumé son amitié en public à Ousmane Sonko té dara fekk ko ci donc amitié boobu non ak franchise boobu non mu am. Mhm. té mu nekk ko nga xamanteni il est il est jeune té Macky Sall ci critères daf ne won ki ko xamanteni nit ñi xamuñu la ko xamanteni il euh, présence ci réseaux sociaux yi euh, la choisir. il ne sera pas capable de maintenir la coalition Benno Bokk surtout ça. surtout ça. Mm-hmm. mais Amadou ne sera pas capable de maintenir Benno Bokk unie xam nga kan capable de maintenir Benno Bokk unie fort fort am sa faiblesse. Aly euh, pas Aly Ngouille Ndiaye autant pour moi. ah ok euh, l'ancien premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Boun Dionne quoi. Boun moom mooy ki nga xamante ni moom mooy puso xam nga puso puso puso ak wëñ bi ñaw benn bokk yaakaar c'est Boun Abdallah Dionne. mais nag euh, Boun Abdallah Dionne popularité am des na de. waaw des na mais dama ne la.

ñu mën a jàpp ne ñoom bu ñu demee su des élections mm-hmm. dinañ mën a am dara en fait popularité li mu koy am am am ki Macky Sall di choisir lu mu am am am popularité dina am dëkk yoo xam ne duñ ko xam Macky Sall ak fi mu jaar yëpp bi mu demee élection dem na ci ay dëkk yoo xam ne ba mu demee daf na leen maay Macky Sall premier ministre wax ay parcours am yëpp ñu ne ko xamuñu la Abdoulaye Wade lañ xam te pourtant il a gagné les fii loolu moom mënul ñàkk quoi. il y il y a l'appareil, il, la, il y, a la personne de Macky Sall qui compte aussi. Mhm. Parce que Macky Sall va battre campagne. Mais pour diversion, avec Macky Sall, vous tassez Macky Sall va battre campagne. Et je ne pense pas que Macky Sall battre campagne. Non, mais, mais tas qui l'image. Man, japonais n'est tas qui mon n'y en fait. Ce fait que dès l'instant que vous le choix avec dynam. Non, mon n'y mhm. Parce que parce que nous nous n'est pas nous. Ali Abdoulaye Daouda Diallo, ah, ah, Amadou

parce que vous vous pas ba fii cela veut dire que le choix de Macky Sall c'est Amour Ba Et Macky Sall le choix ne sera pas un choix de cœur Quand quel choix de cœur Macky Sall. Mm-hmm. il sera un choix de un choix raison choix de raison c'est euh, c'est c'est c'est c'est en fait société est imposée, politique est imposée imposé pas mm-hmm. politique est imposée. mais s'il veut gagner les élections il n'a qu'à choisir le membre Diao

état de droit il faut d'abord nous xam lan de état état de droit Nous avons dégg Sénégal état de droit faut Sénégal ci violation violation des droits de l'homme et tout mais euh, contexte bi contexte lañ ko lañ Mhm. ak ni situation bi mel. Mhm. vous savez pourquoi parce que on a une république en Afrique la république du Sénégal est la république la plus forte Depuis yu ñu wër yëpp am ay coup d'état am ay mais au Sénégal toujours la république est restée toujours